ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ku toog ci seen bureau Core T4 Core X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci dañu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store, améliorez votre quotidien. والقلم وما يسطرون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi concours boobule ba yeneen i jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal C3S mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ci waa kër docteur xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yi yépp agsi nañ te saa yu ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee c ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa ala alihi wa ashaabihi altayibiin altahirin ixwaani alsalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci xéewal gi nu yàlla baaxe ba nu fekke weer wu tedd wi ñu di ko wooye rajabul fard mu bokk ci weer yi yàlla tànn jox leen orma orma ja mënta weesu weer la woo xam ni yàlla dafa tere jaam yi ñu xeex ci ramadaan sax li muy tedd tedd xeex nañ ca biir ramadaan waaye weer wii moom yàlla nee na na ngeen tëral ngànnaay li yàlla nag moo xam lu tax bu leen tooñante bu leen ci xeex ba néew naa am lii xew ci jamono ci pays islaam yi lu baree bari bu weer wi dikkee danañu xaw a dakkal ngir ragal tere gi yàlla tere lu ko waral kon jamono bu nekk war na noo diglu ndigalul borom bi subhaanahu wa taala mi nu wax ni weer wii bu ñëwee na ngeen téye seen gànnaay bu leen xeexati doonte lislaam laaj na ngeen xeex bu leen ko defati weer wi am na lu ma ci denc ku daan tooñ bàyyil tooñ kuñ daan tooñ ngay fay wit bàyyi ko ormaale ko weer wi weer weewu kon ku yàlla dimbali nga fekke ko dana nu la wax ndokkeel nañu la ci di ñaan sunu borom bi subhaanahu wa taala mu fekke loonu yeneen weer yu baree bari te defal nu xiiwalu wér ak wérle ba li mu ci digal nu di ko def li mu nu ci tere nu di ko bàyyi kon weeru rajaba ngoog jàmbaar yi bu weer wi dikkee danañu gën a yokk lu luñ doon def ci jaamu yàlla waaye danañu gën a sori lépp luñ daan def itam ci tooñ borom bi subhaanahu wa taala kon noo ngi ndokkeel ñëpp doonte dana nu mu méteetlu li ñu teeroo weer wii ren ci ay événement yoo xam ni dara baaxu ci weer wi ni yàlla bu leen ci tooñante bu leen ci xeex ci weer woowu ren la ñu waxe ci famille yonent bi dencu yàlla fi mu dencoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ju rafetul borom war na koo tuub te sensé écouteur ndax dafa am ci jamono ñoo xam ne nii dañoo mën a woyafal lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñiy dem ba ni guddi juddu yonent bi amul benn ngëneel wërees su koo def ñoo ca maasele loolu boo boroom xam-xam nag di diglu ñooñu te doo téye saw làmmañ di nga wax njaaxum ñooña la ñuy wax ca seen biir jàkka ya ak ca seen biir diiwaan ya ci jox ñàkk jox yonent bi orma boo ko mënta bañ a diglu it bul ko toxal baaxul du moom rek ko wax de moom nga dégg waaye jiitu woon na ay boroomi conférence wax ko wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa ay waajuram duñu julit dañoo dem safara ndax yonent bee ko wax waaw mbokk mi hadis boobu wax loolu ak ni nga yabe hadis sàngam wérul lu tee néewoo hadis boobu wérul te fi ñu daan jaareele hadis bu wéré di yépp am na fa ba ca jiitu mooy at taarudi mal quraan weddenteeg alquran alquran yàlla wax ni duma bugal wenn xeet mukk ci àddina te yaba yonantu ba noppi ndax yàlla day bañ ku ko yey kon moo tax diggante yonantu ak morom ma am fa diggante bu ñu tuddee fatra ka ca dund duñ ko topp ndax kenn waaru ko ndax ñooñu bokkuñu foofu bu fekkee ne nii ñoo ngi wan ci diine ju jëkk je ba foofu kon diggante yonent bi ak ko jiitu amul fatra ndax ñoo gën a sës amul fatra kon te fatra mënul ñàkk diggante ñaari yonent ndax looloo waral ñuy beesalaat di yónni beneen yonent bu fekkoon ni diine jooja ma ngay continuer ba léegi kon amul benn njariñ ci ñuy yónni beneen yonent bu ñax wax Muhammad kon Muhammad daa war a ñëw rek nekk ndongal yonent booba di ko leeralal waaye ba mu gisee nii lépp raaf na te ñooña fekke raaf gi te kii ab wooteem fekke ko kon dañ leen di boole ci ahlu fitro te boroom xam-xam yu maandu yo foofu lañ leen boole waaye ña nga xam ni nag fu ñu tollu ñoo ngay jéem a weddi lépp lu ñu askene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaax rawatina bu ko ulamaawu suufiya waxee suufiya lu ñu wax pour ñoom wérul pour ñoom wérul dem na ba ma dégg ci ñu ni sax mag ñi xamuñu woon hadis waaye yow hadis junni at ba mu wàcceeg léegi muy ñëw ba léegi nga xam ko fu ñu ko garde woon ci dënni góor yàlla yi lañ ko garde woon góor yàlla yoo xam ne ni ñu dencee woon hadis genn wàll ga mënoo ko téeméeri hadis yu mag sax mokkaloo ko te ñi ngay wax ni xamuñu ko dañ daan mokkal nangami junni hadis ilmi ma'i ay suma yammamtu yatba'uni sadri wi'aa'un lahu laa jawfu sunduqi in kuntu fi lbeyti kaana alilmu fihi ma'i aw kuntu fi suuqi kaana alilmu fi suuqi kan mooy wax loolu nee na aajowoowuma bibliothèque sama dënn mooy sama bibliothèque bu ma nekkee marché bibliothèque nga marché bu ma nekkee ci kër gi bibliothèque nga ci kër na téere yi lakk kooku imaamul Xasaali yoo ko waxan ku ko wax tey ku ko mën a wax tey kooku nga ni xamuñu woon xadis ah xamuñu woon xadis ala xasabi maqtaratum min al bu fekkee ni nii mustalahaat yi nga bind ker ko te tuddee woo ko bidaa te yonent bi xamu ko woon waaye nag tuddee woo ko bidaa ndax neex na la ci loolu nga wut nattukaay boo natt ba ni waa ji xamul woon xadis te waajee garde woon xadis ci dënnam ba mu ñëw tey toog sa loxo xadis nekkul woon alal fada di fa dencu di fa dencu ba léegi mu naaw ñëw abadan defu ko mbokki jullit waxam jooju mu wax te mu rëy lool mu rëy lool xanaa xamuloo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu laal moo gën lu mu laalul bu toogoon ci garab garab ga nekk sangu garab ya bu demee ci dëkk dëkk ba nekk sangu dëkk ya bu naanee ci teen teen ba nekk sangu teen ya lan la ñuy wuti madinatul munawwara amul benn ponk bu aj bu nekk madina ci mbooleem li ñuy aji makka amul benn jaamu yàlla aj bu nekk madina te yéen ñëpp a ngay dem madina lu jox boobu daraja madina wujudul mustapha sallallahu alayhi wa sallam jëmm jëfa tëdd moo ko jox daraja jooju waaw jëmm ju dem ba ñu jullee ni génn na àddina muy jox suuf daraja jooju waaw biir bi mu jóge woon naka la moom yaa réere rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa dalik yonent bi moo ni ma tànn min aslaabin taa'ira ci askan yu leer la ma tànn min abdillahi ila adnaan nee na ñoom ñëpp dañoo tedd ñoom ñëpp mësuñoo def lu bon karimun min karimin min karimin fu ñu jaar daa tedd yow nag nga ni kooku sama waajur sax a ko gën naam boo demee wax nga dëgg waaye yee waajur ñoo nu andil jëmm ju ñuy wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bee waajur moo nu andil kuy saaga rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayuhuma afdal mbokki jurit yi nanu wëlbati sunuy micro am na ñoo xam ne deesu leen diglu ndax bégguñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dañoo fekk setu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dundal sunna ca makkatal mukarama ñu tër leen rendi kooku bëggul ku tuddati kooku kooko nag day wut nag ay àndandoo àndandoo yee nag ñëw na ba ci biir réew mi du ñu ormaal benn yoon yonent bi sallallahu alayhi wa kuy tàgg yonent bi ñu ne li nga wax daa ëpp yonent bi kenn mënu ko wax lu ëpp lu weesu yàlla nga lu la neex tàggee ko rasulullahi ba mu des yàlla nga da ma daathu nasara fi nabiyihimu waxkum bi ma sitamat an fiihi wax takimi dafa la nasaraan ya wax ni diw mooy doomi diw bako ko bul ko wax yow waaye leneen loo wax rek jàpp na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mawlaana seyxul xadim wallahi bu fekkee woon lii tey bakkan dina dem laxira xaw ma ban lay doon ki wax ni laqad maana laqad maana man sanna al muqaffa muhammadan yuhaaki walidan xad mada aw sa yuladu mu ni fen nga te sëriñ bi daawul saaga kan moo fen mu ni ki ni yonent bi am na ci ñi ko ji jiitu woon ku niroog moom walla ñiy bëgg a ñëw ku niroog moom nee na ku wax lii rek fen nga kooku lu mu laal mu tëg lu mu laalul Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu kere bi muy tawaaf kaaba gi ba agsi ci ajarul aswad di ko fóon mu déw doj mu xool ko ni ko wallahi bu ma gisul woon rasulullahi di la foon duma ma la foon ma anta illa hajar aw doj rekk nga ndekete yonent bi kon jox na daraja aw doj yonent bi jox na ab dëkk aw doj yonent bi lu mu def barke la fu mu jóge barke la kooku di su ko foye bokk yi rawatina nag nu nekk ci jamono boo xam ni ñu ngi wax mbas mu rëy ci weer wii yàlla ni bu ci kenn tooñ kenn yow nga tooñ ci gën a rëy ci jamono bii yàlla ni bul dóor kenn nga dóoru yet ci gën a rëy ba noppi nag ni na tàllal suñuy loxo ñaan mu génne mbas mi nu muy génnee mbas mi te nu merloo ko yéen ñii ku ci ñëw sa kër di ñaanub dépense fekk ka nga bëgg a bëgg ca kër ga mu dóor ko mbéj saaga la du yóbbaale dara subhaanahu wa taala nag tey ñu def ko lu ko naqari ba noppi naan nanu tàllal suñuy loxo fu nu koy tàllal ak ku nu koy tàllal ki nu merloo déedéet nanu fàttaliku rasulullah sallallahu alayhi wa weer wii ñu ngi tudde weeru rajab ñu naan weer wu màgg la mais lu ko màggal bihi usriya al mustafa sallallahu alayhi wa sallam min al masjid al haram ila masjid al da cee am liggéey bu ci yonent bi liggéey bu mu deful ci weneen weer ci weer wii la ko yàlla wooye mu yéeg asamaan yi juróom-ñaar jaar baytil maqdis ni gaa yi dem naa baytil maqdis te baytil maqdis ay weer la ñu daan def ci diggante bi gaa yi ci sàkka daf ko wàññi waaye fa mu jëm ah, romb na baytul maqdis ba ñu wooyee aboubacrine sadiq ni ko li sa waaje wax tey mënoo koo gëm ndax nee na daal baytul maqdis reer ba rek rek ni demoon naa baytul maqdis sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj ko nu mu mel mu wax leen mbedd ya wax leen koñ ya wax leen kër ya lu ko waral daa am ku farang moom ki farang moom mooy Sayyiduna Jibril mi ko dajjatil dëkk ba teg ko ci kanamam waaw kooku mbokk mi ndax daraam dina yem ak kenn waxuma la yaaye yonent bi waxuma la bàyyi yonent bi mais mbubbum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ la ne woon ma nga dëkk sàngam suba ñëpp dem ci dëkk ba di xooli mbu mooma te mbuum yaram la ëmb waaw kay moom lu mu yoroon ki nu indil rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci nu may rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya de wuutee nga ak imaamul moom da dañuy woon damay ndokkeel Amina moom mi nu may kii ñuy wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yemuta kenn yemuta kenn bokki jullit yi waaw yéege googu yàlla yéege sayyidul awwalina wal axirina ba ca moom lu ngeen ci mën a déggee dafa am lu mu koy doyee du dara lu dul bëgg koo wax dara xel ma rafet lool xel ma dara manqué ca maa kasabal fuaadu te itam gis ba dara manqué ca jàkkaarloog moom su ma danaa fa te dallaa fa kaana xaba xaw seyni aw adna jige ko lool jige goo xam ne nii li ngay wax di su ko nattable te nopp ya neex na bët ya gis na mu toog jàkkaarloo kookule mu di ko déey am na lu mu ko doon déey loolu mooy lan mooy li ñu fi indi tey muy julli yi juróom xanaa bokk yi xamee ngeen ci ne kon julli rëy na de lu tax yàlla yéegéb yonentu muy xotti déelee asamaan yi ba agsi mu ni ko li ma lay du dara du dul neel jaam yi nañuy julli nañu julli juróom fukki julli bis bu nekk yonent bi wéy bay wàccaat ba agsi ci yonent yàlla Muusa sëriñ Mouhamadul Fadil Mbakke radiallahu taala anu bu ko daan nettali bu tuddee Moussa danaan dafa nekkan ab xeej ci yàlla mooy ku sañ bi mu ko nettileew yoonam mu ni ko loolu ëpp na juróom fukki julli del mu wàññil la ko sallallahu alayhi wa sallam delli mu wàññi juróom mu dellu si mu ni ko dellul di ko def ba muy juróom-ñeenti yoon mu ni ko dellul mu ni nag rus na bàyyi ci juróom yii yàlla ni ko juróom yooyu nag boo ko defee ma jox la yoolu juróom fukki yëpp ba bisub tey saa bu ngeen jullee tisbaar mel na ni julli ngeen juróom fukki julli kooku mooy wone màggaayu julli ndax dañoo woo ci ñu koy jox amul intermédiaire du jibril du keneen ni ko kaay ma wax la ndax li ma lay wax bëgguma dara faay ci jege ma lool te ubbi sa nopp bu baax ma jox la li ma lay jox lii moom bul ko fàtteeti loola moo doon julli juróom kenn du ci wuute amul benn boroom xam-xam li wuute yi bari bari bari bari amul ku ni julli ñeent la wala julli ñett la kenn wuutewu ci ndax ki ko doon jël daf koo jël direct netti lu nu ko jëf ko nu gis digee ci tëkkoo ci sallallahu alayhi wa sallam nee na ku taxawal julli juróom mii yaa taxawal lislaam ba mu ne sàng waaye ku ko bàyyi yaa màbbu lislaam daa nee na moom rekk ay lislaam jàpp naa ni di ngeen jullee ngeen tuuba mas ngeen a jullee tuuba ca jumaay ja am na xutba boo xam ne cheikh mohamadul fadil moo ko bind xutba bu arabe bu neex boo xam ne ni keroog bi muy ubbi jumaa yi tuuba boroom xam-xam yi àddina bépp teew keroog la jàng xutba boobu la xutba bu yéeme la waaye xutba ba da nga ca dégg mu ni la bu ma lay misaal julli ni mu demee ci diine ni bopp mel ci nit ndax mas ngeen a gis ku ñu dagg bopp ba ñu di ko defari abadan boo daggee bopp bi lépp dagg na moom kese mooy jaamu yàlla goo xam ni boo ko bàyyee yoon rey la jàng leen tasawudu si xaar jàng ko Sëriñ tuuba wax na fa ku bàyyi julli ci ñaari anam ki ko bàyyi ngir weddi ko rek moom nee na du dara nee na kooku moom bu ca dëgëree dañ ko war a rey ki ko bàyyi ngir tàyyeel nag dañ ko war a waar rek te di ko digal ay fan bu nangoo baax na bu nanguwul ñu soog koo yóbbu ci yoon ku jëkk ki nag nee na du jullit moom ndax daa weddi julli moom bu dee dañu koy gasum kan rek dugal fa waaye bu ko kenn jullee bu ko kenn taxaw même que ci desit bu ñu ko dee jullit ñu baax ñi bu ñu fa dem nag gaa yu baax yi bu ñu fa dem nañ ko moytu loolu mooy ndigalul sëñ Bamba kon julli loolu rek yoonu yonent bi dem ca asamaan tegtale na ak màggayam waaye bâtiment bii tegtale na màggaayu julli bokk yi bâtiment bii ñaata milliar lu muy jariñ ñu ni julli moom képp ci àddina bi mooy ki nga xam ni mooy jaamu yàlla gi gën a baaxum néeg ci àddina bi amul genn jaamu yàlla gu mel noonu du koor tabaxaluñ ko dara du aj du asaka du lenn julli mooy ki nga xam ne moom lañu wutal néeg bu rëy ni ko nag dee ca dam te lu mu gën a rafet rek moo gën wallahi gaa doon jëkkante di sotti seen alal ya ca néeg ya xam gu ñu xam nu julli toll moo taxoon boo demee ca digg péncum tuuba bâtiment ba fa gën a rëy jullee ko moom kenn defaatugu fa bâtiment bu na toll fii ci ndakaaru noonu beneen dëkk boo dem noonu la kon li muy tekki kooku nee na kii moo màgg kon weer wi mooy weeru julli mooy weer wi nga xam ni day tegtalee màggaayu julli ba tax moom mu amaale ci màggaay goo xam ne nii àddina bépp jox nañ ko weeru rajab mbokki jullit yi xanaa moos bu ñu lenee julli màgg na nga toog ci milliard jaratul wax bu ñu lenee julli màgg na nga fekk jëmm joo xam ne moonu gën fuuf ñu di ko wooyee Mawlana Cheikhul Qadim mu nekkoon chiaaram lan mooy chiaar lu muy def jullee cay jëkk sama bokki diiwaan kër yi sax bu ñuy nettali ay waxam léeg-léeg ñu ni bañ ko laajee nangam mu julli ñaari rakka ni ma laaj ko sama borom yaa ko wax de ndekete kon moom julli mooy màndarga mi muy feeñale léppam Mawlana Cheikh Mouhamadul Basir radiallahu taala anhu nee na dafa fekk sëriñ bi tëdd bis yaram wi libët ba mu metti lool ba àgg ci ñu di ko lalal geeganaay waxtu wa jot nee na ma dem jàkka ja ñu li sëriñ bi génn jiite man ba nu dellu ma laaj ni ko xanaa du yow lañ doon yëkkati léegi mu ne wallahi feebar ñi sama yaram ginnaaw bu xasee dégg allahu akbar mbokk mi kon loo mën a déggee ci loolu ndax loolu genn woyofal mën nga ko cee dégg abadan mënul nekk xanaa kay nga topp sa bànneex rek waaye la mu ca bind ak la mu ca wax ci moytuloo nit ñi sàggane julli ba àgg ci ni yow mi nga xam ni bu julli jotee da koy këpp-këppal rek tiim boo ëllëgee liñ la ciy faye mooy safara moom la lañ dacey faye sëriñ bee ko wax waman bila tuhrin yusalli abada bila daruratin fasoo fisqin bada wala lahu bi zalika tayammumi yowma alqiyamati siwa jahannami waxuma ko moo ko wax te ay waxam laa gën a gëm ci kudul moom nag sunu sëriñ ñu ko jàngaloon laa Mawlana Cheikh Souhaïbou bu na ko yàlla fayal da daan wax ni dee leen dëgër bopp lu sëriñ bi xas wax ku wax lu wuuteeg moom romb leen ko te dem wax na dëgg nag moom keppa woon kat moom keppa woon yëf yu neex yi ku ne mën nga cee bàkku waaye keroog bi muy taxaw fii ci géej gi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 koy tegtalee màggaayu jaamu yàlla gu rëy gii ndax liñ ci digge ci xiiwal liñ ci teg ci mbugal la muy wone mooy lii lu rëy la te Mawlana Cheikhul Khadim wàcc na ñépp xam nañ ko ak julli kuy dem bay julli ci géej gi waxuma la julli ci géej gi waaye fa ñu ko yóbbu woon ku fa mën a taxaw julli ay lambar naag yeneen yu ne mel te kenn fekk ko fa kenn fekk ko fa moom kese xam nga bu nu bu doonoon ngor bu nu amoon ngor bu nu doonoon ngor bu nu amoon kenn du wax mbir mi ni nii laa ko gise sëñ bi nii la ko gise rek la ñu war a wax ndax ba mu koy liggéey moom képp la nag saa waaj bul ci dugal sa xalaat bokkoo ci aya bahru wahid la tusallis fa rabbuna taala ani taslisi akrim bihi rabba da ngaa wañu ko dem lekki sa cerey lay noppil bu ci kenn joxe xalaatam bamba rek a war a wax mooy borom micro bi ku ci indi sa xalaat nañ la ko delloo loolu muy dëgg sëñ Tuubaa nee na alhamdulillah benn mbokk dafa ma ne yéen ni ngeen amee saas ma ne ko lan mu ne ma yéen seen sëriñ bi lu mu war a def rek da ko bind far ma ne ko moo na teewul ni di ko dóoral de naan góor gu baax nee na ak waaju baax nee na ak bàyyi nee na ak maam nee na sa bàyyi lim ci fekkee bariwul ndax demul woon ca géej ga fii la ko bàyyi woon te ba mu ñibbisee amul jot kañ la la ko wax te bu dee dëgg dina dëppoog li mu bind bu ñu dëppoowul wacc ko fa wàcc ko fa sëriñ bi nag li munu digal mooy fonk waxtu yi juróom tey àndakum akum njàpp te di ko defee ci mbooloo lii la dénk te lii la nekkoon mag ñu ko waroon it lii la ñu nekkoon Mawlaana Cheikh Sidi Muxtaar ma sëriñ Cheikh Matiley radiyallahu taala an wa nafaana bihi mi tabax jumaay ji yal na ko yàlla fay dafa mas a wax loo xam ne nii dama caa waaroo jumaa yi Tuubaa mu ñëw ni nañuy defaraat col gi ndegete kon moom ma ngay xool nit ñi li ñuy soloo nañuy moytu colug jigéen ñi muy kiy sol legos ak kiy soli wax ndekete yu ndaw ndawaan yooyu mi ngi ko doon bàyyi xel loolu mooy gëm diine loolu mooy diine la ñor ba li jumaa ji riir ak li ñu koy tëngam wër ko wet gu nekk di dawal bu geesoo ndijooram ñu wër ko nekk ci kanamam nekk ci fépp ndekete woo bëtam daw na ba gis lu ko neexul ci biir jumaa ji mu wax ko bëtam daw na ci biir jumaa ji mu gis fa lu ko neexul mu wax ko looloy gidd kon kooku bu ne fonk na julli faaqan wax na dëgg fonk na julli taxawal na ko sonnoon ci lool di ko jox àqam di ko jox àqam buñ ci gisee lu jaaduwul mu ni du noonu Mawlaana Cheikh Mouhamadou Lamine Baara bi mu doonee xalifa jumaa ji ci kanam da daan bari ñu fay jullee mu romb fa fekk ñu doon nañuy dem ci jumaa ji mbaa ci ginnaaw looloy sunna di ndekete woo gaa yi ba léegi ñu ngi doon defar ndoneelu sëriñ bi tubaa sëriñ Touba bëgg-bëggam ñu ngi koy xool li mu bañ ñu ngi koy xool te teg ci seen bakkan kon weer waa ngoog lii la ñu andil wane ni julli lu màgg la ñi fonk yàlla ñëpp fonk julli yonent bi sallallahu alayhi nee na ju'ilati salaatu qurratu ayni sama xol bu sedd ci julli la amee bala maa bég rek ne allahu akbar nee na mooy sama xol bu sedd ñu baax ñëpp it foofu la seen xol daan nekk Cheikh Abdou Khadir Mbacke daawoo ayibal nit mukk mukk mukk mukk koo xam ne dina ko dina ne asalaamaaleykum geesu gis ko ku mu gis ci jàkka ji boo ci waxee dara mu ne la déet dinaa koy gis sama jàkka jii de nga defeen loolu ay waxam la <laughs> ah déedéet wax yonent bi la de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni ku ngeen gis muy jaabante jàkka ji fashadu lahu bil iman ku ngeen miin ci jàkka ji na ngeen gëm na yàlla seede leen ko fa kanamu borom bi subhanahu wa taala kon jullee ngoog dañ koy waajal ci ci sangu gis nga lii feebar bii digle jullee ko ci jiitu julli nee na raxasul bala ngaa dugg ci jàkka ji ñu ni boo jàkkaarloo waa ji boo waxee say lor daan ko man ngeen wàllante julli ni wanante leen ginnaaw làng leen mu ni boo waxee yi génn julli ni noppi leen kon kenn du ko wàllaate ci jàkka ndax moom jàkkaarloo wunu waxunu far suñuy gémmañ du ñëppi bay génnee lor xanaa imaam rek lañ ko war a wax de moom mi nga xam ne bu ne asalaamaaleykum geesunu te yàlla dogal na dañuy sori waaye sàppe sii kenn mënu cee wàll kenn yàlla sàkk doo ko gisu doo wax doo def lenn lu dul xool borom bi subhaanahu wa taala sant ko lool nag ci xiiwal gii munu andil xiiwal gii munu andil wallahi alazim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 waxal bismillah ñaanal ngëneel bul geesu bul wax bul yëngutu bul jéggat yàlla ngay jàkkaar lool sa sëriñ bi nga fonk sax bu xasee toog dootoo ko jéggi am déet waaw yàlla miinu bindu moom nu nag te man noo rey fii ma taxaw léegi léegi léegi te kenn du ko mën a faj ñu naan moo ne moom de léegi la doon waxtaan fii rek faatu na ñu ni ko nañ ko danda rek ñu paree yóbbu ko Touba képp kat du ngeen ci dolli leneen dandale teg ne rek <laughs> waaw waaw dandale teg ne képp la bu ngeen paree summi ah dandale leen mbuumi kat daa weex fexe leen ba buum ko laal mbuumi daa weex fexe leen ba buum ko laal la ma dencoon ca kër ga yow ma tub la sarair jamono bu ne ngeen ma di leen ko wax yow ma tub la sarair mooy kañ kero ba secret yi feeñ laa ilaha illallah kero bi àddina bépp teewe niinu teew ñu yëkkate waa yi ne waajaa ngi nii ñuy wax li mu doon def démb foofu la ngeen defee ni mooy yow ma tubla sarair déedéet kere ba mu faatoo ci ëllëg sa rek la yow ma tubla sarair dañoo daal dikk daal jëb armu waalam ubbi koofar foolam xew xooli kontam xool ay dencam jàmbur njaaye koy wëlbati naan waaw waaw kayit nangam la fii de bor la fi amee woon fii de dañ ko fee ameel bor fii de diwa ko moom fii de noonu na diwa ko moom fii de lim fi def keroog yow ma tubla sarair ñëwulam te ku ca gën a góor nga ni kii kon nag bokk yi sëriñ tuubaa nee na auditeel sa bopp balaa bis boobu nu audité sunu bopp xam ni yàlla rek mooy yàlla nuy jox teggin jàkka ji dinaay wax ba tàyyi ni jàkka ji dafa bees ñu baree bari joxaguñ ko darajay jàkka ndax dañoo dañoo bi nu tàmb bi sànce bi jeexee daa yeggagul waaye jàkka kenn du fa wax déedéet jàkka kenn du fa wax kuy wax sax doo ko teree waxal doo xëcc waa ji ni ko bul wax da koy bàyyi rek di jàkkaarloog yàlla ba imaam toog dinu wax nuy diglu jamono boobu nag moo ci raw bu yilimaan xasee yëg ci minbar yonent bi nee na boo waxee ba àggal ñu taxañ li nga fi doon jullit yëpp sànni la ne la demal ñibbi indi woo jële woo fi dara yonent yàlla musal kon teggi ni jàkka yaakaar naa ni eh, ñi fiy def ay waxtaan war nañ cee xuus bu baax a baax ndax jàkka ju bees toujours war nañuy jàngal nit ñi nuñ ci war a dunde nuñ ci war a dunde léeg-léeg damay am problème problème bi mooy lan bu ma nekkee ci salle bi ñu noodu ca jàkka jële ma génn jaar fii bis bu ne rek am na lu dugg sama bopp bi ni ma yaa ngi dugg ci jàkk te julli woo ñaari rakkat yi yaa ngi jaar ci jàkka ji te julli woo ñaari rakk nuyu woo jàkka ji de yaa ngi koy jéggi dem xanaa fuqaaw yi ñoom si sëñ Isaa dañu ma ubbee danañu ma ubbee wutal ma ak yolamal ba loolu ma man koo def waaye bu dul loolu rek man damay am problème ci romb foofu le yal na yàlla defal tawfiix te teg nu ci yoon wi yoon wi nga xam ne moo di aw yoonam yoon woo mu gën a gërëm te yàlla defal nu bëggloonu sëriñ Touba bëggloonu mbindum sëriñ Touba bëggloonu ay waxam di ko jëfe bu boobaa jox nañ ko addiya addiya ji nga xam ne moo gën a rëy mooy nga jub ñu ne lu la jubal nga ne lii dama ko daan def baaxul ma dégg ñu ne sëriñ bi tere na ko ba naa ko lii ka daawu ma ko def ma dégg ni sëñ bi nee na nañ ko def def naa ko loola jub nga bu keroogee jox nga sëriñ Touba addiye joo xam ne yonent bi nee na moo ëpp àddina bi yëpp nga def ko ci wurus moo ko gën a bari yal na yàlla defal tawfiq wa salaamu aleykum wa rahmatullah